bismillahi irrahmaani irrahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen rajo ci seen jataay bi mu tuddee Riyaadu Saalihiin ngeen koy am bis bu waxtu bi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala jëleen ko defal si ngeen ci ànd seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër tey mu war a nekk sunu ñeenteelu jataay ñetteelu jataay bi ñu ngi taxawoon ci al ni mu gisee li tax mu taalif téere bi ma wax ne loolu mu gis moo tax waa Sud ca bañ ko dooree ba léegi saa bu ñu duggee ci ramadan xel yépp dem ci riyaadu saalihiin bu nu dogee ba noppi rek déglu ko door a dog xam xama ndogu buñ dogee déglu ko door a ndogu ndax imaam Ablaay Ndaw ndaw kundaa yi dañuy dog ndogu reer mbëstën xëdd yàlla <laughs> na yàlla yokk leen barke te nangu seen koor waaye ñoom noonu lañ koy doxale imaam nee na dafa gis ne ginnaaw yii yépp sunu boroom a ko wax ya ca des yónnante ba wax ko wa taawunu alal birri wa taqwa la sunu boroom wax yónnante ba wax ne wallaahu fi awni al abdi waxaat man dalla ala xayr waxaat man daa ila huda waxaat fa wallahi li an yahdiya allahu bika rajulan wahida nee bi mu gisee lii moom imaam la wax ne foofu war naa fee mën a dugg am fi dara foofu mu ne war naa fee mën dugg am fi dara ma ne loolu ko xamb moom ci introduction bii nga xam ne moom la def moo xamb euh, asayida xadija abdurahman nekk fële ca Mogadishu ca capital ba Soumal jël ay takkaayam jaay Khadija jël ay takkaayam jaay lam dajale woon ci alal mu jël jaay oto yi mu amoon mu jaay yépp bam mu des benn boole xaalis ba lépp mu di daanaka milliard mu fab lépp móollu ca riyaadu saalihin allahu akbar móollu ci riyaadu saalihin maye ko ca suumaal muy tasaaro ci Afrique ba agsi Sénégal te man dalla ala xeyr njooy yonent yu baax nga xam ne képp ku ubbi riyaadu saalihin ci riyaadu saalihinam yooya daal di ne qaala rasulullahi daal di wax ba mu jeex sunu borom daal di fëgg soxna soosa Khadija Abdurahman ne ko si Riyaadu Saalihiin ba nga móoloon am na ci bu àgg Sénégal ma nga ca rajo bu ñuy wax Sud FM ngóor suñu wax Alioune Sall moo ko yor ma ngi koy jéem a firi waaw juróomi téeméeri nit déglu nañ ko tey te juróomi téeméeri nit yooya nit ku ca nekk am nga ca ci xaalis deux mille cinq cent ñu ngi la mi ngi la ñu ngi la denc ci sa compte bu yomal xiyaamee boo dekkee jël ko mu néew <laughs> allahu akbar allahu akbar ay waay ndeysaan bu lii mokkoon ci suñ penc bi kon daar yëpp jàkk kon nit ñi jël seen xaalis yi def ko ci daar yi daar yëpp jàkk malheureusement malheureusement ci waaw am na ñuy góor nag waaye daal xadija mii de jar naa ñee waaw xam naa ajab binte jaw ñee na ko waaw donte moom la muy defit bu ko Xadija xamoon ñee ko waaw ak yaayi daaraam ndeysaan yàlla nu yàlla boole sàmm nee na mu gis ne kon war naa tënk benn téere tënk boo xam ne day tànn al ahadis a saxiixa hadis boo xam ne amul benn werante mënees na koo yët Nasir din al albani mënees na koo yët Euh, alxuthaymin mën nañ ko ko yët ñoom ñaar buñ ko yëree buñ ko yëree taxrij addis yi bu dee téeméeri addis un pour cent yi du ne baaxut wala du ñu ne wérut al imam loolu la wax mu ne mu def ko nag ci yoon woo xam ne dana mën a wéral ki nga xam ne moo jàng téere bi walla mu dégg ko mbaa mu déglu ko mu rëddal ko yoon woo xam ne weeru leer naññ la ilal aaxirati jëm ëllëg jëm ëllëg bu ko defee tënk boobu muy tënk addis yooyu lu ko tënk-tënk dana ci indi dana ca dugal ay teggin yoo xam ne mooy teggin yi nit ki mën a nekk ci nit ñi ak teggin yoo xam ne mooy teggin yi nit ki mën a nekke këram waaw ndax ñaari nekkuwaay la ñaari milieu sa kër ak mbo sa bureau ki am teggin yi mën a nekke këram jox koy teggin yu mën a nekke biroom day yomb ndax nekk ci biir mbooloo ak i teggin ñépp mënuñu ko nekk sa kër ak i teggin ñépp mënuñu ko al imaamu ne daf ñu bëgg defal formation boo xam ne bii séminaire lay doon peut am ay atelier peut-être ba bu ci noppee nun ñëpp ñu mbokk ca saalixuuna yàlla ko yàlla fay al imaam Nawawi mu ne dana boole ci liggéey boobu ay addis yoo xam ni li tarxiib tarxiib mooy sawarloo nit ki xemmem loo ko ci lim nekk loolooy tarxiib waaw tarxiib mooy xemmeem loo nit ki li mu nekk xam nga koor baax na lool waaye tarxiib a nga ca biir ku woor benn bis nangam ngay am ku màng weer wi nangam am ku naafila nangam ngay am ku saraxe ci koor gi nangam ngay am ku doxu bokk nangam ngay am ku jàngal xuraan nangam ngay am ku dem ca tafsir ba nangam ngay am rekk tabarkal yooyu yëpp tarxiib la nga xam ni yow mi gëm ne loolu ñu wax dëgg la luutoo sonn laa la wala nahaar luutoo sonn hmm? waaw waaw mu def ci tarxiib tarxiib mooy bi mu la xemmem la ba nga xemmem dafa am tarxiib mooy tiit loolu ba nga tiit ku def nàngambal yàlla jàppee duma la ku def nàngambal yàlla jàppee duma la ku def nangamul yàlla lépp jàppee duma la ba nga tiit bàyyi yooye ngay def dana ci indi aadaabu saalikiina waaw wa saayiru anwaai aadaabi saalikiina waaw saalikoona yi mooy ñu sóobu tey dem madaariju saalikiina dégg ngeen ko masaalikul jinaan yi dégg ngeen ko misbaawu saalik dégg ngeen ko saalik mooy ki sóobu yoon wi mooy nit ñëpp buñ nekkoon nun ñëpp buñ xëyoon benn waay fekk ñu Dakar waaw daal dugal ci oto yóbbu ñu jam ñaajo ñoom njoogu géej asbax naa ak <laughs> sama gaa yu baax yooyu yàlla yàlla sàmm leen yóbbu nun ñëpp bàyyi nu jam ñaajo ca centre bu rëy ba ñu tëdd ba seteur heures matin ñu yeew waaw ñun lu nu indi jam ñaajo maa ngi maa ngi jéem a misaal saalikoone yi lu nu indi jam ñaajo ah njoo njoogu njoogu géey daal ne ah man dey tableau Tivaouane lañ ma jële kenn man de barab sàngam lañ ma jële waaw ñun lu nu fi wut fii léegi bu ñu bëggee dellu dakaar nu ñuy def bi nu bëggee dellu dakaar nu ñuy def ki yeewu ma nga cee xalaat xalaat ya jural ko xam ni muy def dogu jural ko mu def lam xalaat départ jam ñaajo dugg ñëw ca tali ba bi jël ko jëm si Dakar ku ko jox saalik sunu boroom daa ami jaam ne leen fafirru bi mu amee am na ñoo xam ne fas nañoo yónnee dem am nañu départagut am nañu bëggut a dem asaalikoona moom la mag ñi daan tuddee taalube saalikoona taalube yi waaw taalube yépp nag taalibe yonent bi laa ci jublu sallallahu alayhi wa sallam ndax moo ne fa firru ilallah inni lakum minhu nadir fa laa jóge saaliku ni mooy ñi départ saaliku ni mooy ñi départ ñi xam li départ bi te mooy yeewu xalaat xam laxasaayu daal di départ imaam nee na mboolem xeeti sóobu yooyu ñu bu bëgg a dem ne danañ jàngal ci téere bi lu ñu may ak cawarte ba ñu mën a dem jàngal ñi ci àdduna lu ñu may tayal ci àdduna tabarkàlla ba équilibre am imam nee na danañu indil addis yoo xam ne du lay jàngale nee na téere bi danañu ci indil addis yoo xam ne zuhdu lay jàngale zuhdu mooy dëddu àdduna jekku àdduna ba noppi dëddu ko waaw jëkku àdduna ba noppi nag dëddu ko du la yàqal sa benn programme loolu mooy dëddu àdduna bokkut ak àdduna dëddu la <laughs> àdduna dëddu la bokkut ak nga dëddu àdduna imam nee na bu ñu indilee addisu zuhd dinañu indil addisu riyaadaatu nufuus hmm, waaye imaam yaa baax waay riyaadaatu nufuus riyaadaatu nufuus mooy tàggat bakkan danay wax ci waxtaan yi doomu aadama ñetti bakkan la moo ne ci kanamam annafsul amaare bi su annafsul lawaama annafsul mutmainna annafsul amaare bi su imaam nee na daf ñoo bëgg indil addis yoo xam ne danañ tàqali kook naf annafsul amaare bi su dañ tàqali ko moom lan mooy annafsul amaare bi su mooy bakkan bi tax nogay pànk bakkan bi tax nogay mën a defante bakkan bi tax nogay di jëw waaw an nafsul amaara bi suu moo nekkoon kër Aziz Misra nekk ci jabaram Zuleyxa ba tax mu naan euh, Yuusufa kaa ñu séq mbaa nga dem kaso kaa ñu séq mbaa nga dem kaso yusufa ne ko kasoo ma gënal siq ak yow asijnu ahabu ilayya waaw dem kaso moo ma gënal siq ak yow rekk tabarkàlla riyaadaat riyaadaat nufus boobu imaam nee na danañu ko defal ba ñu mën a jóge ci nafsul amaara bi suu noo koy wàññ wàññi pànkam gi xam naa ci koor gi moom du ci mën a jeexal pànk gi waaye xanaa war na ko mën a wàññi <laughs> ak âge bi mu am <laughs> waaw war na ko mën a wàññi ndeysaan xam naa su may dem Mbàkke rek di fa fekk sama sama sama cookurus koor waaw <laughs> jóge mbar ba Mbàkke benn kilo suukar la may yët su ma jox ko jigéen ña leen yewi leen ma mbaa ngeen woo ko téléphone mu yewi ma eh, envoyé ma am naa nangam nangam si <laughs> <laughs> kenn mësu koo gis rek yàlla na pànk ga dañ imaam nee na daal moom danañu dimbale ci benn formation boo xam ne sunu bakkan yi lay ànd ak ñun defal ñu formation yooyu yàlla na ko yàlla fay nee na dana ci indi ay addis yoo xam ne tahsibul axlaaq lay jëriñ mooy defaral jikko yi addis yoo xam ne day defar jikko day mooñaat jikko jubbanti ko jekk-jekkal ko moom jikko ndax ku la gën a jag jikko bu ëllëgee moo lay gën a jege sallallahu alayhi wa boroom jikko yi boo ko di wax ci ñoom dara imaam nee na danañu indil ay ay ahadis yoo xam ne tahaaratul xulub day laabal xol day raxas xol da koy fóot ba mu set ba xol bi du am kañaan xol bi duutu am soxor duutu am puukaréew duutu am ak rëy duutu am ak nay raxas xol bi mu set wecc borom duutul jëw du bañ kenn du xeebaate waaw imaam nee na ñu indil ci téere bi addis yoo xam ne foofu la jëm waaye neen dañu indil addis yoo xam ne day faj xol ku am doxful imaan addis yooyu faj la ba nga wér mën a ànd ak nit ñi walla ñi gëm ñi waaw nee na dañu indali ay hadis yoo xam ne dañ ciy jànge sàmmi cër sàmmi cër sàmm say tànk ba doo ca dox lu borom kala jox tànk yi tere sàmm sa loxo ba doo ca jël lu muy tere sàmm say bët sàmm saw làmmiñ sàmm sa tubéy sàmm sa sér yooyu yépp nee na dinañu ko jàngal ci biir téere bi boole ca nag sàmm biir ba doo ca dugal lu ca war a dugg cay imaam nee na dëng gi nekk ci cër yépp danañu jàngal ci ay aayaa ki lu ca mën a faj nit mu ne wa xayri dalika min maqasidil aarifina allahu akbar wa xayri dalika min maqasidil aarifina waaw mu ne dina indi yeneen sax yoo xam ne aarifu nii buñ masaana samp daara loolaa tax ñu daan samp daara ji waaw nee na nag fas na yéene du tudd benn addis lu dul ci addis yu wér ya ndax li wér ci addis defar na penc mi neena na it téere yu wér ya ak alxuraanul karim ay ayaat karimaat dana ko ci def dana ko ci def mu ne lu ci loo ci xam ne jaar naa settantal dana ko settantal lu ci jara walbati xool dana ko walbati xool mu ngoog mu ne nag mu ngi yaakaar ci téere bi su matee loolu ma waxoon lépp mu ne ca mu mën a nekk saaiqan lil muxta lil muxtani bihi ila ilal xayraati mu ne mu nekk gidd mu nekk kuy ommate ko jiital ki moom téere bi jëmee ko ci lu baax dox digganteem ak yi baaxut tey alke tey alage ne mi ngi laaj nag euh, képp koo xam ne kii yër nga téere bi nga ñaanal ko moom al imaam an ñaanal waajuram wu góor ak wu jigéen ñaanal sëri sëriñam yi nga xam ne ñoo ko formé ñoo ko jàngal ñaanal ay soppeem yi nga xam ne àndoon na ak ñoom guddeeg bëccëg ñaanal jullit yépp ñu nga xam ne jamono ji ñuy jàpp Sud FM seen rajo di ko déglu mbokk yi bind bi jeexut bind bi jeexut euh, muy bindub ñeenteel bu yàlla may dund ba ëllëg yàlla dund ba ëllëg te weesu ko nu wéyal jataay beeg waxtaan wi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ñu ngi jégalu soxna yi di jégalu sëriñ ci ni ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër suñu sponsor yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci jataay bi saa bu ñu duggee ci weeru koor ñu leen di jaajëfal ñoom ñëpp di ñaan li ñuy liggéey am barke ñi nga xam ne ñu ngi jox ay suukaru koor ak ak yeneen ñu ci aju ñoom tam ñu ngi leen di ñaanal barke ak tawfiix waaw jërë ngeen jëf ak suñu for yëkkatee jataay bi di ñaan jàmm ci réew réew yi ko